ci seen télévision Lamp Fall TV ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit noo ngi amaat di leen nuyu te di leen jaar di leen balo àq di leen ko baal di jàkkaarloo waat ak yéen ci beneen ëtt ci ëtti Serigne Touba yi mu mel ne nag tey jii ñëw nañ ci ëtt bu mag boo xam ne mooy ëtt bi nga xam ne moo leeral ëtt yëpp mu di ëttub maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine ñëw fii ci pàkk yi nga xam ne wala pénc mi nga xam ne moom la jàmbaari lislaam ja joxoon njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall mu di péncum maam Cheikh Ibrahima Fall ci Touba bokk yi xam ngeen ne maam Cheikh daan wax ne eh, jaamkat du dëkkakub sangam da koy daan bu ko soxlaa mu wuy si ko su noppee ci moom mu delluwaat ca ngàllo ga loolu moo taxoon maam Cheikh Ibrahima musta nangoo sës mukk ci kanam sëñ Touba waaye Cheikh Salihu Mbacke mu rëy ma ab gis xamoon na ne it maam Cheikh Rahima Fall mooy ki nga xam ne moo wata a wattu ñag bi loo tax fii njabootuk maam Cheikh Rahima Fall gépp àndandoo nekk fi waaye ndakate ci ak mbaay Fall ci la ñuy jànge ak murit ndax ku ne xam na ne Serigne Touba li mu woote woon dama koy wax toujours ne dafay fekkoon daaray alxuraan yoo xam ne ci la mokkale alxuraan moom fekkoon fi ay daaray xam-xam yoo xam ne ci la jànge xam-xam te daara ju Serigne Touba jànge alxuraan ku ne xam ne ne ñooñu ay jàngalekat lañ daara ju sëriñ tubaa jànge xam-xam it ku ne xam ne ne ay boroomi xam a fa nekkoon kon li Serigne tubaa woote duutu njàngaleem alxuraan duutu njàngaleem xam-xam ndax fi la ko fekk. lan la sëriñ tubaa woote mooy àgg ci yàlla àgg ci yàlla nag bi mu ko wootee doomi soxna yëpp ko wuy si waaye ñeneen ñi ci des ñëpp ko wuy si lamp baabul diin mi nag ba mu wuy see moo xam le nañuy doxale suñ digganteek sëriñ tubaa ci wooteem bu yees boobu loolu moo tax tey jii ñu toog fii ànd ko ak waa Jazbul Murid feggoo ci ak sunu jarbaat Serigne Mamour Ndaw xam naa moom na ñuy jox kàddu gi mu présenté ñëw bokk yi ñu seqal jataay bi waaye nag ñu xam ne li sabab jataay bi tey ci ëttu murit mooy daaray alquran ak jot xam-xam kenn nattabliwut ne maam Cheikh Rahima Fall ku delluwaat ci am mbindam delluwaat ci am njàngam wax na ne bi bi ko xetuk sëriñ Tuubaa di xeeñ bi muy toll ci dal jàng rek la alliwa juñ ko bindal nee na buñ koy sa am na luy nekk ci noppam bi naan ko jàngal te jóg liggéey li ahmadu jàngal te jóg liggéey li ahmadu kon naka jekk xam na ne am na beneen sëriñ bu mu war a liggéeyal ci kanamam bu tudd Ahmadou Bamba waaye nag xamoon na ne it ne alxuraan mooy li nga xamante ne bii ci lañ mën a jaara gi bés sëriñ Tuubaa moo tax Seex Ibra Faal doonoon ku mokkal alxuraan ku mënoon a bind ku amoon xam-xam waaye boo delluwaatee ci sëtam yi itam fekk leen ñoom ñëpp ñu di ay xaafisul xuraan di ay borom xam-xam yu mag di kenn ku nekk jekku nag ci wàllu mbind ci xalima su nga xam ne kii moom sëñ bi kaatib dëgg la loolu moo tax ñu toog ci daaray alxuraan ji nga xam ne moom la ñu fas yéene rëddal maam Cheikh ma Fall mbooleem sëti Cheikh Ibrahima fas yéene fi dafi jàng alxuraan ñu ànd ak Serigne Mamour Ndaw ànd ko ak waa daayira Jësbul Murid dama koy bàyyi mu nuyoo ak bokki taalibe yi eh, ànd itam suñu jarbaat Serigne Alioune Badara Ndim eh, ñu fas yéene seq jataay bi sëñ Mamour boo nuyoo ak bokk yi ba noppi présenté ñu jataay bi ñëwal ñu tuuti ci diggante Cheikh Ibrahima Fall ak alxuraan ba nit ñi nga xam ne ñooy wax wala di seetaan ñu xam ne Cheikh Ibrahima mii ko dañoon ak réer la dañ ak réer moo tax mu mën a xam fan la sëñ Tuubaa nekk ba wari woon ko kon sëñ Mamour bisimilah. aouzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu di ñu topp ci biir réew ci bitim réew yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax di leen nuyoo fii ci daaray maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci euh, kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko joxoon njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall daara jii ji jës Jazbul Murit mooy daayira bi lëkkale mboolem seeti maam Cheikh Ibrahima Fall yi taxawal fi daara ju mag ci ndigalal ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Jëm di ziar bu baax a baax a baax sëñ Xaadim Fall mii di kilifa ak jotaay bi waaye di jël nuyoo yëpp nag teg ko ci loxoom mu séddaleel ñu ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi fi teew sëñ Modou moom sëñ di Yaasin mi nga xam ne tey mooy jëwri ni liggéey bi ay rakkam ak i magam yëpp doyloo ko jiital ko ci kanamum liggéey bi. di ziar kilifa yi fi teew yëpp sëñ fàllu Galassi la suñu nijaay ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziar di ziar mbokki Lamp Fall yëpp di beral nuyoo ak ziar sëñ Aline Badara Ndim ak mbooleem groupe Lamp Fall bépp euh, euh, tur wi nga wooyee Cheikh Ibra Fall nag muy làmp dafa dafa am fu mu ñu yegg léegi ndax euh, dama sama xel daa dem ca la ma sëñ Xaadim ña waxoon Nuuru Daare nii bu bokk ak ba Basirum sëñ Fallou wajur mu ne ma sëñ Ibrahima Sall moo ma ne maag soxna aw bu soo ànd ñu ñëw ci ku tedd ki mi nee bay génn seen maam Cheikh Ibrahima Fall muy ñëw ne sëñ Ibrahima Sall ne ko ci làmm ñu soxna Awa sa laa njëkk dégg mu ne kee di ñëw da làmp kon làmp yàgg na fi Serigne Touba ko de maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax nag euh, jàmbaar jooju nag di Cheikh Ibrahima Fall sët yii bu ñu demee ba woo defar taxawal daara ju toll nii dellowaat sa maam Cheikh Ibrahima di seen maam njukkal ngir wane ne doomi daara la. loolu dana tax àddina xam ne Cheikh Ibra Fall fii la tegoon tànkam wax nga ko léegi bi muy jàng ci ay bokkam ndax maam Cheikh ay nijaayam a ko jàngal baayam daa teel a génn àddina lool maam Ahmadou Fall Roqeya lu ëpp jëflante wut moom ci saayir ndax ci ndawam la dem waaye fekk na nag nijaayam yi ñuy wax Njaay Faat maag ñam bokkal bokk ak Seyni bu Njaay lépp ca njare daara lañu waroon di jàngale mag ñi ñoo ma ne ca njare ndax waxtu wi ñu toll nii bu du jotaay bi mag sëñ Aline mii waxtu yu njare kër Sall lañu waroon a fekk kon foofu mooy daara maam Cheikh Ibrahima Fall ja nga xam ne fa la te nijaayam yoroon daara ji alxuraan moom Cheikh Ibrahima neewoon na am naa ci wàll te ma nga ca sëdiya te feeñ na ndax bi leen Cheikh Ibrahima joxe barab bii wax naa ne ñoom ñii am na ci ñooñ ci seen i ndigalal waajur lañ nekk sampaguñ seen i kër yi bopp te xalaatuñu fi seeni kër daara lañ fi xalaat kon dañoo bëgg a delloowaat la Cheikh Ibra Fall waxoon Baye Ibrahima Thiam na ko jàng naa alxuraan ba mokkal ko tafsir naa ay téere xam-xam yu bari Cheikh Ibra nee na waaye sun boroom moo ma ne jamono ji na li may def ci kenn laa koy def Ibrahima Fall li may def ci jamono ji def naa ko ci Ahmadou Bamba dama wëri ko waaw Cheikh Ibra Fall nee moo tax ma bàyyi lépp topp sëñ Bamba waaye ku dañu nug réer la de ndax maam Balla Fagey mi jur ndeyam daara la yoroon maam Seydi bu Njaay daana jàngale ci biir daara yi maam Balla Fagey mag ñi ñoo mën a ca njare bu maam Balla Fage masaan a génn maam Seyni mu Ndiaye aw donga yi bàyyam ci daara ji kon ndayam jàngalekat la woon maamam jàngalekat la woon doomi soxna la ca lam war a xam lépp xam na ko li wër warak jàpp njabi faal ak lu ko wër lépp mboolem ku fa dëkk tey jii te say maam fekkee woon démb xam nañ ne maam Cheikh Ibrahima Fall dañ nag réer ndax am na ci lool ca diggante boobu la xewee dee su ko wax ci jotaay waaye daal lu mën a xew mooy Cheikh Ibrahima Fall moom ci daara la jóge fekk sëriñ fekk sëriñ bi ndax kër baayam ak kër maam yëpp daara la te kër ndayam mooy kër baayam ndax roqee njaay mi jur Amadou roqee ak Seynabu njaay bokk lépp moo tax ci jiw wu am solo la bàyyi ko loolu moo sabab nag mbooleem ku mas a yar ku mas a jur ci taaw ba cim caat dugal na la nga jàng maa la wax loolu am na ci ñooy ay diplôme lañ génne ku mel ne sëñ Assane Fall ku mel ne sëñ laay Fall Ndar ku mel ne sëñ Falilou Fall mën naa ci tudd sëñ Aliou Fall Mboor bi ñuy jàng école madrasage fële ca ndar ay diplôme lañ fa génnewaale kenn ku ci nekk amoon nga say diplôme yoo xamante ne bii tubaab sax liñ ci daan wax am na ci ñooñ jàpp woon nañ ne ñoom doomi Cheikh Rafal diggul tubaab bu noonu liñ naan làkk ci arab signali Fall Mbaor bu la masaana bindal lettre arab da nga naan kii fan la jànge kon Cheikh Rafal ku mas a am dugal na la nga jàng ci daara te it sët yi itam firnde lañ ci ndax sët sëtam bu ci nekk ci ay daara lañ jànge am na ci ñooñ dem nañ ba Daaru Salaam Bambul jàngi xam nga ci dara am na ci ñooñ daal di sëñ Moustapha si ñooy jaar nañ fi di jàng am na ci ñoo xamante ne bii jaar nañ fii di jumaa ji jàng kon mboolem kum am ak mboolem kum yar la nga war a xam-xam nga ko dañ koy réer waaye nag dafa am loo xam ne daw aw yat wu Cheikh Ibra yoroon loola daanaka day day nëbbu lu bari ndax ñii boo leen fekkee ñu toog lenn looy xamee ci ñoom ne xam nañ dara bu dee ci ay wax du seen waxtaan ñoom duñ ko waxtaanee lii liggéey tool bu ñu liggéey seen maam la waaye nag jëf mooy seen ngànnaay ndax ci la seen maam nekkoon Cheikh Ibra nee na jàng baax na nag ndax ku jàng loo gis xam ko waaye nag liggéey leen sëñ Bàmba nag ku ko liggéey lu bëgg am ko liy dox ci daara ji gàllankooru dara ci liy dox ci seen diggante ak seen yoonu maam wi mu xaalante muy jëf ndax li ñuy liggéey ci kër maam Cheikh Ibrahima fal kenn mënu leen ci boo leen laajee ñoom am nañ eh, ndaje mu ñuy def saa bu ne ci koor gi ndaje moomu liñ ciy dajale ciy addiye di ko yóbbul sëñ Cheikh jëm kéemaan la di sofu ci biir ndog yi liggéey buñ dégg ci biir kër Cheikh Ibra lu ñu ca mën def ko te it doxut ci seen diggante kenn ku ne la sa baay am na ci ñooñ li seen i wéjur di doxal ñoo ko yor ci biir réew mi ak réew te dara gàllankooru dara ci seen diggante ak daara ji li fi war ñu ngi koy def donc yi nga fi gis yëpp ñoo doon yoro seen lépp dañ na bu kenn yalwaani bu kenn dem fenn toog leen li ñu saamam Cheikh Ibra Fall di wërsëgale ñu jël ko su sunu ñàkk di leen ko dundale ngeen jàng alxuraan fii loola kon day loo xamante ne bii sëñ fallu dana delloowaat ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne Cheikh Ibra néewul fii ñi nga xam ne xamuñu woon maam Cheikh Ibrahima Fall lenn ci démbam ci digganteem ak daara ak fonk gi mu ko fonkeel ku ñëw ci jës Jazbul Murid bi da nga xam fa maam Cheikh Ibrahima Fall tegoon tàkkam kenn ku ne ci ñoom wàcc nga alxuraan kenn ku ne ci ñoom jàng nga xam-xam kenn ku nekk ci ñoom dañ nga griir lu leen ump amul waaye nag boo toogee ñoom ci jotaay buñ la ko waxul doo ko xam ndax li leen ñor te yitteel leen moo yat wa seen maam yoroon te ci la mën a ñëpp ndax maam Cheikh Ibrahima Fall la ko waxoon li leen yàlla jox jox leen ko sëñ Bamba loo joxul sëñ Bamba dana xew te bu xewee ko ko jox ko jël waaye daal ci tënk Cheikh ci démbam ba mu ganee jamono ci biir bokkam dem ba mat a dal dalal nañ ko yeggale na am njàngam ci boromi xam-xam yu bari ci lu ëpp tund njare googu ndax njare njare moom ku leen xamoon démb xam leen tey xam naa ay doomi daara lañ kon ca la maam Seyni mu Njaay bokk Balla Fagey ak maam Soxna Balla Njaay ñu ko jur seen kër guñ mas a am ci njare daaray Alxuraan lañ ko samp ci la maam Cheikh génn fekki Serigne Touba Mbacke Kajoor te bi mu ñëwee it borom yi xam-xam la fa fekk ndax euh, maa ngi ko signalé ñu ci ko roog maa ngi naan ko Cheikh la du nit la xam ne du nit mooy lam indi Mbacke Kajoor mooy Daara Joomu te Daara Daa yàgg ndax barab bii tey ñu nekk di fa yëngu signalé ba sëñ sëñ sëñ Fallou Gala Sylla di fa yaatale liggéeyam sama Cheikh Rafal bi àdduna bépp di ko di ko di ko gis Daara Joomu Daa la de Daara Joomu Daa Cheikh Ibrahima njëkk indi waaye yàgg na kon su ko defee loolu lañ indi woon ci li ñuy leeral won la ne daal jotaay bii jotaay la boo xamante ne bii fii ñu koy defee ci péncum Cheikh Ibra Fall mii ndax fii kenn raxu leen lépp alali Cheikh Ibra pàkk yaa ngi nii li ko wër lépp doomi Cheikh Ibra yee ko moom ak sëti Cheikh Ibra yi pàkk bii Jazboul Mouride muy sëti maam Cheikh Ibrahima ñoo ko moom te li nga fi gis ni ab tàmbali la waaye sànce yaa ngi ci kanam di ñëw te bu ci kanamee tuuti sëñ Modou bu dikkee dina ci gën a leeral ci liñ fi naal ak li des li ci soññ murid yi nag ndax waxoon naa ne xale yi ku leen waajalul Cheikh Ibra Fall ne neewoon na ndaw ku ko waajal mu war a waajal boppam kon ñii mat nañoo waajal ndax ñii la jamono soxla ëllëg kon képp ku taxaw ngir yar leen ak jàngal leen war ngaa fexe yow bala la yàllay mosal nga di leen ca mosal ñoom bi ci desit mooy alquraanu karim di ñu koy defal kenn ku ne war na saa su nekk ngay làmb ci sa bos di def ngir yàlla beneen bi ci des nag mooy jaarale ko ci ki nga xam ne kenn du ko audit muy Cheikh Ibra Fall maa ko wax fii waaw kenn du ko audit moom mbiram day jàll sëñ Saali woon waxoon ambulance mooy sans bay Cheikh Ibra fooruus du ko téye circulation bi lu mu xat-xat day jàll Cheikh Ibrahima ngi noonu te Cheikh Maolana ni wax na ko ca way kon nag maam Cheikh Ibrahima Fall képp ku jaarale sa mbir ci moom sëriñ Fallum sëñ Sonia bu da moo ma ko waxoon moo man ne sama addiye ci loxol sëñ Mënunta Fall laa ko daan teg saa bu daan yóbbu addiye fajar ma ñëwee ma jox ko sama am na ko yóbbaale ma ko ndax xam naa ne jëfi Cheikh Ibrahima sëñ du ko delloo Mamour Ndaw amaat na solo lool ci li nga leeral ci wàllu Cheikh ma Fall ci ak ndawam wane ne ci taali jàngu rek la juddoo ci diggante kër ndey ak kër baay te loolu feeñ na ci bi muy wër sëriñ bi ak bi mu gisee sëriñ bi ak ni àndeek sëriñ bi waaye buñ del siwaatee ci liggéeyub uh, Jazbul Murid xool mbaar mi nga xam ne moom lañ fi def muy mbaarum jàngukaayu alquran ak ko xam ab liggéey xam li mbaar mi jël xam ne ñi ñi def ñii ci seen alal alquran am na lu leen jaral ku génne pàkk bu toll nii it ak li fi nekk ci ab ay naal xam ne ñii koy def am na lu leen alxur alxuraan jaral damay wax nag toujours ne alxuraan day jàng ko dafa war bépp jullit jàng xam-xam it war na bépp mu kàllaf waaye nag day am loo xam ne ngir nga man koo am nekkul ci téere bi ngay jàng ndax téere bi kat mën na laa jàngal xamal la yoon wi jëm ci yàlla waaye jàpp sa loxo yóbbu la ci yàlla nag la nee na koy def loolu moo taxoon maam Cheikh Rahima Fall nee na ba mu jaayanteeg Serigne Touba daf ko laajoon na ko ak ji sëriñ bi tërbiye ñaata at la nee na sëriñ Tuubaa ne ko fanweeri at la nee na ma xam ne am nañu ko attunut mu ne ko Mbàkke wàññil ñu ko mu ne ma fukki at ak juróom waaye nee na man ñetti at laa tërbiye kon day mel ne fanweeri at yi ko sëriñ Tuubaa waxoon at mu ne fukki at yu ne benn at la ko def nee na mu dellu laajaat sëriñ tubaa na ko noo ñuy dëkkee ak sëriñ loolu feeñ na ci barab bii maam Cheikh Rahima Fall dëkkee ak sëriñ tubaa nee na sëriñ Tuubaa moo ko ne woon ni ñuy dëkkee sëb sëriñ mooy dee ko dànd su bu fa dem kon maam Cheikh Ibra daan na Serigne Touba su ko du fa dem mu ne ko nu ñuy toogee moom mu ne ko da ngay mel ne kuy julli loolu yaakaar naa ne ku meen Cheikh Rahma Fall xam ne bu toogee ak Serigne Touba ñaari bëti woom yi da koy sukk sëpp bët jëm ba ba kuy dem ci Serigne Touba xam nga ne nii la Cheikh Ibra Fall daan doxee nee na ko bu la yónnee nooy def mu ne ko boo amul bul dëpp kon kenn naa tabliwut ne maam Cheikh ndawul Serigne Touba mos ta ñëw te yóbbuwut la Serigne Touba yónnee woon mu ne ko na la jaral dem ba tàbbi ci géej waaye boo amul bul dëpp mu ne ko bu la boo ko yët addiya nooy def mu ne ko da ngay mel ne daay gu jaar ci màngug noor da miraas sa bopp yóbbaale ko Cheikh Ibra nee na kuy làmb sa poos xam ne dara des na fi nga soog koo yët sëñ tubaa nee na xamagoo sëñ tubaa nee na booy dem doo xam looy joxe doo xam loo dese kon yaakaar naa ne loolu feeñ na ci diggante xam-xamu maam Cheikh ma Fall ak diggante pas-pasam ak Serigne Touba kon sëñ sëñ moom lay jox kàddu gi mu ubbi ko ñoo ngi fii ci eh, seen émission ëttu nekk ci daaray maam Cheikh Rayma Fall buñ ko tuddee nag mooy daaray alquran ak jot xam-xam yi nga xam ne njabootuk maam Cheikh Rayma Fall fas nañ ko yéenee def defal ko lislaam defal ko Cheikh Rayma Fall su ko defee ànd ko nag ak li nga xam ne mooy jëf jël tey bàkkub maam Cheikh Rayma Fall kon sëñ Xaadim bisimilah. noo ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalib yëpp di leen siyaare fii ci daaray maam Cheikh Rayma Fall di ñaan la baax sëñ Muntaxa fi nekkal suñu maam Borom Tuubaa yal na fi yàlla yàggal te wér ko lool ak mboolem njaboot suñu Tuubaa yëpp waaye di ñaan baax sëñ Cheikh Jëm Fall yal na fi yàlla bàyyi te wér ko ak mboolem njabootu maam ak mboolem Cheikh Lisaan yëpp di baax sëñ Fall Grassi la ci kàddu yi nga tàmbalee ak sëñ Mamoun Ndaw di rafet baax ci émission bi nga indi fii ci daara ji ñu waxtaane fii daara ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaye xam naa ne sëñ Fall waxee rek nga naa ñu am na ñoo xamante ne ñi mi sëñ Modou Sant ak sëñ Cheikh Bombali ak sëñ Fall sëñ Mamoun Ndaw dañu ñu bokk taay bi ñu xam ne daal ñoo ñoo ànd liggéey bi ñu ngi ci biir liggéey bi sëñ Modou mi mooy jëriñ ji mu sëñ di asin man mi maa yore commission finance di sëñ Xaadim Fall sëñ Cheikh Baye Góor mi sama wet mooy denc li xam mooy xéwal daara ji waaye gannaaw ñoom ñi ngi fi rek euh, dañoo waaju émission waajaluñ ko moom daañu gën a leeral lu bari ba ci liggéey bi waaye dañ doon nuyoo rek ñu xam daal bokk taali bi ñu saraan ci biir réew bitim réew yëpp noo ngi ci liggéey daara ji ni ko si maam waxee noo ngi sàkk it bokk taali bi ak jul yëpp xam ne daara ji ñu ngi liggéey bi te bëgg na ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ngi liñ bëgg daal mooy yar fi xale yi jàngal alxuraan jàngal leen xasaayit xamal leen kan mooy Sëñ yar leen ci ak taalibe looloo tax daara ji nag bokk ci yéen daara ji moom daara Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa rek fi nekk ak Seex Ibra kon ñoo ngi woo bokk jullit yëpp bokk daal ñoo ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn góor jigéen mag ndaw fu waaye nekk rek noo ngi daal loxo ñëpp moom tubarkaale macha allah dañu nuyoo ñu bay ñu bàyyi leen ñu àggalee liggéey bi jërëjëf sëñ Fallou Gallassi jërëjëf. waa kay sëñ Modou bëggoon nañoo xam rek euh, taxaw euh, naal bi nga xam ne Jazbul Mouride naal la ko muy daare alquran ji euh, naal bi nan la toll ak naka la ko Jazbul Mouride fas yéenee saytoo ak programme bi nga xamante ni fas nañ ko fi yéenee amee ci daara ji xam ne daare maam Cheikh Rahima Fall la di daare sëñ Touba waaye di joo xam ne jàng alquran ak xam-xam lañ fas yéenee def. jazaakallahu xayran jërëjëf sëñ Fallou. xam nga yàgg ngaa dégg ba taay ñu ne Cheikh Ibra waxoon na ne ba ba ñuy lem dénd ba fa suñ baam ma samp mbër ma samp mbër ci wet ga loolu moom wax nañ ne Cheikh Ibra Fall moo ko wax ñu bari nag jàpp nañ ne ci xalifaam yi ci la ko jëmale waaye déedéet Cheikh Ibra ay waxam dafa yaatu ndax euh, boo dee xool daara ji ci penk bi di daara yi Cheikh Ahmadou Bamba te mu ñaanoon ko suñ Abdoulaat naal ko mu dem ba nga xam ne jot na ñu yeesalaat ko kii fi nekkal Serigne Touba yeesalaat ko te wax ne bu mu laal suuf muy daara jooju ci penk bi muy université bi daara jii tamit mooy université maam Cheikh Ibrahima Fall Babul diina ki daa nekk ci penk bi kii nekk ci sow bi te lépp di lenn muy ak defar la ci sëriñ bi bëgg moo tax nag mu jël daara ji teg ko ci loxo yi gis bul murid sëti maam Cheikh Ibrahima Fall ànd kook taalibe yi ak sëti maam Saliou Fall ñu ci baree bari tamit ci liggéey bi lañ bokk ndax maam saali ak maam Cheikh du ñaar kenn lañ sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi xalifa bi tey moom moo teg si woon xeer wi. ànd kook sëñ Cheikh jëmm ci ndigalu sëñ Moodu Cheikh Mouhamadou sëñ Sidi Mokhtar boobu moo fi nekk mille 2015 2016 ci lañ teg si woon xeer wi euh, sëñ Muntaxa ñëw teg si xeer wi ànd kook mboolem njabootu sëñ Fallu njabootu sëñ Touba gi njabootu lislaam gépp ñëw teew fi sañ Cheikh jëmm tamit ñëw teew fi muy fii nii ci suñ ginnaaw fi lañ doon tegee xeer wi bi mu ko tegee xeer wi ba pare ñaan na fi tamit ñaan yoo xam ne waxtu wu nekk tamit ñu ngi ciy gis ak yokkute bu baax a baax daara ji nag leen mooy yéene ji mooy la la Cheikh Ibra Fall doon jàngale muy euh, kennal sëriñ tubaa loolu moo tax ñu sos daara ñu sos daara ji sëriñ bi mu ñu joxee ndigal digal ñu tamit ne nañ fi euh, jàngal xale yi yar leen ci yarub lislaam bañ amuk taalibe ndax ab yar mooy lépp ndax sëñ bi jàngaloon nañu ci ay téereem nañu xam-xam boo ko barilee te amoo te amoo ay teggin dalay ñod di jëmale ci ay lor ak i coona wax na tamit ne nit ki su fekkee ne dafa bokk ci askan wu baax te amuti teggin ku ko gis day jàpp na ci askan wi gën a yées ci la bokk dellu ñu waxe tamit ne nit ki bu bokkee ci askan woo xam ne kenn xamu leen muy askan wu yées te am amub yar ami teggin ku gis da ngay jàpp ne ci askan wu gën a baax ci bokk kon léegi li ma ci bëgg déggee mooy ab yar mooy lépp ndax nit ki bu xasee amub yar ñàkkul dara bu xasee ñàkk yar ren amul dara ndax jaa maa ngi am bis may liir benn way ku ñu wax sëñ bay jaxate yal ko yàlla doolee fay mu wax ne amub yi tax ñu jël nit fab ko teg ko ca kaw ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw mu dellu wax nañu ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom day tax nga gën fa sa boroom ku la yarul rekk la ndax daal di wax ne ku la mayeenu junni it te jàppalub yar may la it léegi nga gis junni yarat boroomub yar for ko sex ab yar la dee fi gëne nit ab yar la dee fi rawe nit ab yar la dee fi sute nit ne du alal ak rëy yax ñu naa ah, mu ne ndax judd bu rëy mutu la ndamoo ragal yàlla mata te ku ko am du ko ndamoo ngir dootu gis baaxam nga sax kon nit ki askan wu mu mën a bokk ak lu askan wa kawe kawe kawe yëpp laa boole wax te amoo bi yar amoo dara askan woo mën a bokk lu mu suufe suufe te nga amoo yar ñàkkoo dara te borom bi yar mooy lépp bu xase nit ki bu xasee amoo yar rek na xam ne àddina am baax na ëllëgam tamit dana baax kon nag daara ji li tax tamit sëñ bi joxuñu ko ngir ñu fi jàngal xale yi fexe bañ amub yar ndax ngay dégg ñu naan bari na ñoo xam ne dañuy woo ay xale di leen di leen jàngal di leen jàngal di leen jàngal leneen loo xam ne nii bokkut ak njàngalem sëriñ bi loolu nag loolu nag man ni ma ko ko mën a gisee mooy euh, di jàngal xale yi ubbi ay daara di leen jàngal yeneen njàng xam ne bokkut ak njàngalum sëriñ bi loolu du caagi ne ay wax moo koy saafara mboolem ñi nga xam ne dañoo aju ci kër sëriñ bi ñu bari ñu ngi ciy bay seen waar waaye ab soññee la ci sama kalaas gi muy li ñu war a defaat mooy delluwaat ci. daara yi yar xale yi ndax kenn ku ci nekk am na kër goo bokk am na kër goo kër ga nga bokk tamit am na ay sët waxtu wu nekk war nañuy tabax ay daara yu mag xool famille ba ca bokk ñu dugal leen ca daara yu ñu jàng alxuraan jàng xasida xam yaru sëriñ bi ba bu ëllëgee xale yi duñu rëcc ndax xale yi ñu ngi rëcc nànk-nànk te ñu ngi leen di for di leen dugalaat ci leneen loo xam ne nii naka si du noonu la te du caagi ne wax ci rajo yi ak wax ci télé yi moo koy saafara li koy saafara mooy fas yéenee def ni ñooñu def ndax ki nga xam ne day yàq lu mu ko jaral yow miy defar lu ko raw man war na la koo jaral kon nag nit ki wërta bàyyi alalam muy yàqu te ñun sëriñ bi dañoo defal lépp ba pare féetuñu fépp ñàkkuñu dara kon nag li ñu ko mën a delloo njukkal mooy xool li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam ñu fas ci yéenee góorgóorlu suñu kem talaay kattan ndax waxoon na leen rek mooy sama cat ñàkk a toog Tuubaa di fa jàngal alxuraan képp ku ko defal loo bëgg ma defal képp ku ko def loo bëgg dama la koy defal kon ñi dañ leen a war a gàttantu ndax ñoom ñoo fi des bu ëllëgee ndax kenn ku ci nekk ci ñii muy yéen jàng nga xam nga la nga war a xam yar nañ la fañ la war a yare waaye nag boo gisee ngeen di sonn ci yu mel nii wala ñii di tabax ay daara wala def def lu baax xale yi ñoo tax te xale yi bu ëllëgee ñoom ñoo fiy mujj te ñi nga xam ne gëmul yàlla sax ñi nga waajal seeni ndaw waajal gi ñu waajal seeni ndaw nag mooy liñ ci jublu mooy bëgg a jekku àdduna ba bu ëllëgee ñoom donte donte dañ donte duñ ko fekkee sax bu ëllëgee dañ fiy jóge seen ndawee bu ñu ñëwee dañuy continuer mission bi nga xam ne moom lañ doon dox tubaab yi lu ci ëpp ñoom ñi ngi koy def léegi nag ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ te lislaam mooy suñu lépp te amuñu beneen wàccuwaay bu gën a kawe lislaam ndax sëñ waxoon na ne kanzil kitaabu wal xadis wal adab laa jamhu fiddatin wala jamhu sahab sama sama sama sama sama coffre-fort mooy sama compte banque mooy alquran ak xadis ak adab nekkuma koo xam ne tamit damay dajale ay xaalis wala may dajale urus wala may dajal leneen leneen leneen kon sëñ Tuubaa lii mooy lii coffre-fortam ñun dañ ko a fonkle ndax waxoon na ne bustaani kitaabullaahi sama tool mooy téereb yàlla bi kon téereb yàlla bi ginnaaw mooy toolub Serigne Touba te ñun ñuy taalibey Serigne Touba lu ñu war a def fu ñu toll di ko fonk di ko jox àq ji ñu ko war a jox ñi nga xam ne dañuy jàngal alxuraan ñu warmaal leen ba pare tamit respect bi nga xam ne war nañ koo jox ci ñoom jox leen ko ndax jamono ji tool nañ ci jamono joo xam nit ki su fekkee ne day jàngal alxuraan sax dana dem ci ay mbokkam di fa bëgg soxna sax duñ ko ko may wala mu dem ci barab boo xam ne nii sax daanaka wàcc waay wañ ko fara jox dañ naan ah kii da ab sëñ daara rek la te fekk nañu ne métier mi gën a fort métier mi gën a riche ci ñoo ko yor moo moo ñoom ñoo ko yor ndax léeg-léeg gis nit sax muy di jàngal sa doom àq ja nga xam ne moom moo war sa digganteek moom doog ko def ndax sëñ bi waxoon na ci nax ju ne ki lay jàngal faqad xaq an yuhda ilayhi karamatan bi taxliimi xarfin waahidin alfa dirham ki lay jàngal benn araf donc bu la ko xamalee war nga koo jox junniy dërëm léegi nag yow bi nga xam da ngaa samp daara ci dëkk bi wala ci koñ di jàngale alxuraan donte da ngay fayu weer ñaar téeméer sax wala weer ñeenti téeméer xale bi day ñëw nee sama bàyyi nee na yorul loolu te loolu nit ñi teguñu ko fenn ki nga xam ne day jàngaat ci yeneen meneenum jàng nag moom lu ne danga koy daj ci moom te de li ngay daj ci moom du ngir yàlla kii ngay daj ci moom nga xam ne mën na laa defaral sa tey defaral sa ëllëg kooku moom nga war a gën a sonn ci moom message la boo xam ne koy jàllale ci àdduna ñu xam ne nit ñi dañoo war a fonkaat alxuraan. jërëjëf euh, sëñ Modou moom sëriñ Amdi Yaasin euh, moom Serif Assane moom ma Cheikh Rahima euh, kàddu yi amati na solo te xam-xame na. waaye wane na it ne e, ndakate Cheikh Ibra moom munta bay ci benn tool bu du toolub sëriñ bi kon yaakaar naa ne e, sëriñ Mbacke Madina sëñ Cheikh Bombali e, moom sëriñ Ngunda Yacine ci mm, bokk ci njabootu maam sëñ Mourou Moustapha Fall waaye bokk ci waa kër maam Cheikh Rahima Fall dañu wax ne dañuy dañ koy jox kàddu yi nga ni ji tuuti ci njariñul alxuraan ak jàngale ko donte sëñ moodu junj na ko nga gën koo leeral su ko defee bokk yi nga xam ne ñu ngi topp seen émission ëttu murit xam ne tey jii ñu ngi ci ëttub alquran waaye ñu ngi ci ëttub taalibe di ëttub maam Cheikh Rahma Fall kon euh, sëñ Cheikh bisimilah. allahumma salli ala sayyidina muhammadin bahril anwaari wa mahadinil asrar wa lisaani alxujjati wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokk yi ni seetaan di nuyu di ziar ak di dalal sëñ gala Galass Sylla eh, di rafetlu kàddu yi nga xam ni jib na fi yëpp eh, sëriñ Mamour Ndaw ubbi ko eh, ak sëriñ Modou mu mel ni wax nanu li ñu fi dajale lépp jëm ci njariñul xam-xam xam-xam nekk mbir moo xam ni sëriñ tuuba daf ko yitteeloon lool dëkkam bi itam bi mu koy sanc euh, dara taxul woon lu dul jaamu yàlla ak itam jàngale fi yar fi ñaan ci xasidaam gu siiw googu di Matlabul Fawzayni wax suñ boroom ne ko dëkk bi na ko def mu nekk dëkkub sàkkuwaayu xam-xam waj'alhu dahban maskana taallumi wa mawdiu al fikrati wa tafahumi mu mel ni loolee la sëriñ muntaxa al xalifa ataalallahu baqaahu wa atamma muraadahu yéene sëriñ boobu la woote ba taxawal université bi te loolu tam ci la maam Cheikh Ibrahima Fall njabootam gi nekk taxawal daara ji ci jannatul mahwa di fi jàngale alquranul karim waaye di fi yar yarub lislaam di tarbiya ni ku ne xam na ni jàng mënta dem te ànd takub yar comme ni ko sëriñ Modou waxe fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaayibatun ilal aza wa taabi bëri xam-xam te àndut ak teggin li muy euh, yóbbee boroom mooy coona euh, euh, ndax alxuraan sunu boroom subhaanahu wa taala dafa wax yonent bi ne ko Eh, wàccee naa ko waaye dinaa la ko laaj laaj ko mboolem mboolem mboolem jullit ñëpp bu ëllëgee dinaa leen taxawal laaj la laaj leen ko wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa eh, loolu sëtu maam Ibrahima Faal xam moo waral ñu ñu dajaloo ngir taxawal daara ju toll ngir di fi mën a jàngal xale yi waaye di leen fi yar eh, ndax xale ni ko suñ maam waxee rek maam Seex Ibra daana ko wax ni ndaw boo ko waajalul mu waajal boppam te na muy waajalee boppam mën na laa bañ a neex te sëñ bi fonkoon na am njàng lool sëñ bu mag bi ba nga xam ne ku ma saana ñëw si moom sax boo weesoo am njàng ci wàllu dem daara dana fexe ba nga xam sa sa diine ci ay tomb te daana wax ne am doom man koo taxaw ba mokkal alxuraan te defoo ko daray àdduna jëru ko te dégg naa bu ko daan wax day jël loxoom dóor ko si suuf kon am na fu mu tegoon fu fu fu tegoon alxuraan ak xam gi mu xam ni ni ko sëñ Modou waxee léegi euh, xam gi mu xam ni xale la koy jariñ mooy alxuraan jiitu si dënnam kon loolu moo waral njabootu maam seen Ibrahima Fall ginnaaw bi ñu amee ndigalul seen kilifa ni ko sëñ Modou waxee duñ si jaaraat sëñ Mountakha tegee xeer bi ñu dal liggéey bi euh, ba mu toll fii euh, ba mbaar mi toll fii mu toll moo waral ñu tijji daara ji tàmbali njàng mi nga xam ni alxuraan fépp fu ñu koy jàngee rek ak yokkute dafay am moo waral ñu tijj ko mu ànd ak liggéey bi nag ñu ngi ci njàng mi waaye ñu ngi ñu ngi ci ci liggéey bi xëy na mën naa wax ni ñaari tabax moo fi am muy tabax bii muy tabax bâtiment yi ak tabax gi ñuy tabax xale yi te tabax gi ñuy tabax xale yi sax dëgg-dëgg damay wax ni moo gën a jafe moo waral lu laaj dafa dafa laaj taxawu lool Euh, xëy na programme daara ji lu si ëpp ci wàllu kuy dugg ak yu demee noonu yëpp xëy na dañ ko teg sama loxo euh, loolu nag ni muy demee mooy daara ji am na limite boo xam ne wax na ni bu fa eggee euh, ci lañu yamale donga yi ba jëmmi jamono waaye lu ci mën a am daal li nga xam ne mooy mooy sart yi nga xam ne mooy moom moom la ñu doxee ci daara ji te bëgg képp ku kuy kuy dégg kàddu gi te fiy ñëw sart yooyu Euh, nga nga nga nga koy man di xam mooy képp kuy ñëw ci ci képp kuy ñëw ci ci ci daara ji euh, ndax ndax daara ji ñaar lañ fiy jàngale bu ñu fàtte loolu muy alxuraan waaye ak ak yar euh, ndax yar bi lu ci am solo la ndax Serigne Saalihu daana daana wax ci daaraam yi daana soññee lu bëree bëri ci wàllu yar bi daana wax sax ni bu demee ba munta ñàkk na yar bi gën a gën a gën a gën a gën a ëpp doole njàng mi comme ni ko sëñ Modou waxee te xam ni ab yar mooy lépp moo waral daara ji dañ fee soxla ab yar ci biir loolu nag moo waral képp kuy ñëw si daara ji xëy na li si ay sart mooy mooy xale la xale bi mënta ñàkk nga xam ne moom lay jëfandikoo ci wàllu fu muy tëdd fu muy def ay bagaasam loolu moom da koy ëndaale bu dee wàllu sol sol gi it xëy na dañoo maase dañoo bëgg xale yi ñoom ñëpp it ñu maase ci genn sol muy yëre yoo xam ne yëre yi murit lay doon Eh, nga xam ne ñoom ñëpp dañu maase sol ko ndax yar bi foofu lay tàmbale nga xam ne solu morit lay doon ba bu buñ fi génnee eh, loolu lañu lañu lañu la mën a tàmm eh, programme bi it si wàllu njàng mi jël nañ fi ñaari sëriñ daara muy sëñ Basiir ak sëñ Masamba ñoom it di ay jàmbaar ay ndaw di ay borom xam-xam ñoom ñooy saytu xale yi kenn ku nekk it xëy na am na lu njaboot gi di warlu ak ñoom weeru de di la ko jox donte alxuraan du du kenn mënta fay sax kilo la ko téel waaye ak ak barkeelu lay doon ci biir lool yit am na koo xam ni ñooñu sëriñ daara yooyu bu nu wàccee ba dem dallu ji seen néeg am na keneen ku ku fi ku fi euh, nekk koo xam ni mooy taxawu xale yi ndax xale fu mu nekk euh, mën nañ faa nekk di bëreeg yooyu moo waral am na koo xam ne moom mooy saytu xale yi nga xam ni moom li li li liy wàllam ci daara ji rek mooy saytu xale yi bu xale yi bu sëriñ daara yi wàccee ba dem seen néeg di dallu kooku moom mooy ñëw xool xale yi kuy bëre mu tele la Eh, bu gisee laa bu nekk fee tasaaroo mu jël yëpp dajale eh, moom daal moo mooy saytu wàllu wàllu daara yi kon mën nañoo jàpp ni ñaari sëriñ daara ñoo fi nekkagun ak ki nga xam ni mooy saytu xale yi eh, programme njàng mi nag xëy na ni muy ni muy demee rek moom mooy programme bi bi bi gën a siiw xëy na si si njàngum tuubaa mën naa wax ni daara man bu ma sukkandikoo ci daara yi sëñ Abibu rek dana doy delluwaay mën naa ni programme ba nekk foofu rek xëy na si wàllu jàng moom lañu moom moom moom la ñu wéyal fii waaw kon xëy na programme njàng mi noonu lay demee euh, xëy nag bu dee wàllu dunduk xale yeeg euh, euh, seen dund ak seen nekkuwaay loolu it mi ngi aw yoon bu baax a baax ndax xale moom fu mu nekk te xiiful marul rek yaakaar naa mën naa am jàmm waaw te it ku gis mbaar mi xam ni dëkkal nañ leen ci dëkkuwaay boo xam ni xëy na am na sax si biir sa njaboot gi ñoo xam ni dëkkuwaay yu mel noonu amuñu ko kon loolu it day tegtale ni eh, xëy na daara ji bëgg nañ mu tegu ci yoon bu wér a wér ci biir lool yi di sant ñi nga xam ni mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk ñoo dëkkee ci wet ci wet gi muy wër daara ji nga xam ni xëy na dañ ciy dugal seen loxo bu baax a baax ci togg ay ñam di indi ci fóotal xale yi ak lépp luñ mën seen doole ndax dañuy wax ni ñett ñii rek ñoom ñoo fi nekk muy kiy jàng ak kiy jàngale ak ki leen jàppale eh, kon eh, xëy na ki ki ki kiy jàng moom faaw mu yittewoo ku ko jàngal ah, kiy jàngale it faaw mu yittewoo ku ko jàppale kon ñett ñooñu rek ñoo fi nekk mooral dañuy sant bu baax ñi nga xam ne xëy na seen taxawaay ci daara ji eh, ràññiku na lool xëy na duñ tudd waaye buñ santee ñi nga xam ne ñoo ñoo dëkkee fii rek dëkk ak dëkk ak dëkk ak eh, donga yi xëy na mën nañoo yóbbaale ñëpp ndax fe fii ba bitim réew fu nekk rek am na ñoo xam seen loxo ñu ngi koy dugal si daara ji loolu dañ siy sant bu baax a baax yoo xam ne daara ji daal mi ngi nii xam ni daara yi maam Cheikh Ibra la eh, joo xam ni ak njabootam ñoo ko sos comme nii ko sëñ Mamour Ndaw waxee wax ni eh, comme nii ko sëñ Mamour Ndaw waxee wax ni maam Cheikh Ibra dafa waxoon ni alxuraan am naa ci wàll waaye mi ngi ci sët ya xëy na loolu moo tax ba yàlla dugal ko suñuy loxo ñaan suñu borom nag mu sàmmal ñu ko loolu ci biir lool it eh, am na ay numéro yoo xam ni xëy na mooy numéro yi daara ji nga xam ni képp ku bëgg am lu la leer wala xëy na nga nga nga nga bëggaloo barkeloo ci daara ji boo wootee si numéro yooyu rek eh, dees na dees dees na la mën a wuyu leeral la bu baax numéro yi benn bi mooy 78 592 86 86 592 78 ngay def 592 def 86 86 am na beneen numéro yi muy 78 592 eh, moom it 87 87 kon yooyu mooy numéro yi nga xam ni Eh, xëy na képp ku bëgg ak ak ak leeral ci liggéey bi eh, boo wootee ci numéro yi da nga jot jëwriñ yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo jiite liggéey bi ñu mën la koo leeral baax kon ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Fallou Gala Sylla ci taxawaay bi eh, ak ak ci bëgg lu baax gi ak ci dëgg-dëgg foo ko fekk wax dëgg yàlla dangay xam ne kuy liggéeyal sëriñ bi la fu fu mu toll waaye fu mu toll dafa jël ab tànkam teg ko ci liggéey bi kon loolu ñu ngi la si gën a soññ di si gën a ñaanal di ñaan nga am si ngërëmul eh, borom tubaab mi nga xam ne moo tax nga koy def ah, di ñaanal sëñ Mamour Ndaw mi eh, nga xam ne moom it yéen a bokk liggéey bi ak sëñ Aline Badara Ndim ah, di leen ñaanal bu baax a baax suñu borom gën leen a sàmm eh, di sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp sëriñ Touré mi ak mboolem mbokk yi fi nekk rek sëñ di jaaroon na kon ñu ngi sant bu baax di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Cheikh Fall Baye Góor. bu gisee maam Cheikh Ibrahima Fall may wax ne mooy lumière bi mooy nit mën naa am xam-xam lool te amub te du amub yar nit mën naa am alal lool te du amub yar nit mën naa am daraja lool te du amub yar te dama wax ne ku mu ñàkkub yar ku mën a doon ci ko ñuy topp la gën a bon te saa yoo toogee doomi soxna wala kilifa gu ñuy topp te yareesu ko faw sa loxo dem sa gémmiñ ndax dana feeñce waxam baa mu feeñ ca jëfam waaye ku xool sunu sang yi jiitu wax xam ne li njëkk a jiitu mooy yar nañ seen kàddu te nit li mu war a njëkk a def rek mooy njëkk yar kàddoom yar nañ seen kàddu sogo yar seen jëmm te teewul nag li ñu war a xam lépp xam nañ ko waaye nag sëñ Mamour damay wax ne ah làmb ji mbër na ci de sëñ daa ñi doon damoo alxuraan ñi daan damoo xam-xam bàyyee waar wi Cheikh Ibra Cheikh jóge waat na ci waar wa ñëwaat ci daara yi ba du leen def nag ni leen def ci waar bi kon yaakaar naa dama lay bàyyee kàddu gi foofu. waaw loolu day sëñ Fallou loolu sama xel day dem ci keroog bi fi sëñ Mamour mu um sëñ Fallou ñëwee la mu waxoon def na ay waaye ndaw ah yéen itam da ngeen a yem ci sikar si rek te bàyyi ñoog daara ji nag waaye bëgg boole ñaar yëpp nag. xanaa da daa daa daa noonu nag noonu kon kon noonu nu ñuy def nag noonu bu ngeen boolee ñaar yëpp. dañ koy yem nañ ci sikkar rek nag te bàyyi te bàyyi nu nag ak daara ji waaye loolu day delluwaat ci ne xam nga Cheikh Ibra daa mës jug ci lii waaw waaye ki xam-xam na Cheikh Ibra ne ki xamul xamul nag waaw xam-xam waaye xamul xamul waxoon na ko nee na baatin na yoo xam waaye ñi xam-xam nañ ne Cheikh Ibra mës jug ci lii moom ndax wax nga turu yàlla ni ci Cheikh Ibra Fall meloon sëñ Modou saa Mbacke bi mu mujjee fi moom boobu ku baax ki dem na loolu Baye Cheikh galoon na ko nettali soo demee ci waxtaanu Mouride Sadi da nga ko fa fekk sëñ Modou Ablaye ko wax nee na keroog bi mujjee fi moom bi ko maam seex gisee daa daal di tudd yàlla ca kaw waaye tudd gëm tudd yàlla ci kanamu sëñ Modou Moussa daa daal di yónni Cheikh Tall wala kenn ca mag ña fa newoon su ma fàttiwut waaye seex Tall lay doon baa kennan rek nee na daf ko yónni ca Baye Ibrahima Thiam moo yoroon kopparfoor ba daa denc addi yi daan bàyyi ko ci Cheikh di dem ci sëñ bi Baye Ibrahima Thiam la yónnee ne ko bu ngeen demee ne lu fa nekkoon na leen ko jox. maam Cheikh Tall nee na dégg naa ko ci Baye Tall ñang mu sëñ Moussa ñang koll suñ su leen Cheikh Ibrahima Sane kan kan la ñuy wuyoo waaw kan la ñuy wuyoo ba kër ñu àgg boo ne Ibrahima boo ne Ibrahima Thiam mu ne kan nga ne Moussa ñang koll mu ne kan feeg dellusiwaatuñ ci Cheikh Ibrahima kan la ñuy wuyoo nee bi ñu egsee Baye Ibrahima eh, Baye Cheikh Baye Cheikh kan jël Baye Baye Ibrahima kan jël xaalis addiyee jox ko bi mu ko joxee maam Cheikh mu lëmas ko ñëw jox ko sëñ Modou Moussa Mbacke ne ko tudd ma yàlla fi yow ngir tiit dama ko doon nooyee Cheikh Ibrahima ne turu yàlla du ko daan nooyee kon kooku mosu ci jóg da sax moom loolu boo demee ci waxtaanu Mouride Sade ak i jotaay nett li Baye Ibrahima Thiam ne na loola Baye Cheikh Tall Galo fekke nañ loola Cheikh Ibra Fall ne ne turu yàlla koy noyee kon moom tudduma yàlla fi ngir tiit dama dama koy noyee ñu bëri nag dañ ne ba mu ko gisee xel ma daa dem ci ku tedd moo tax mu ne laa ilaha illallah tudd ci kaw waaw loolu it benn la ci kon Cheikh Ibra moom daa naka ca loola la nekk mosu caa jóg ma ngoog suuf bi ci des mooy yar bi sëñ seex euh, sëñ sëñ Cheikh Baye Góor wax léegi ab yar moom ci kër Cheikh Ibra la dëppee ndax yar mun tawee weesu gis nga jotaay bi sëñ Fallou miin nañ ko lool te jotaay bu métti la toogin wii tooginu murit jot jotaay bu métti la te miin nañ ko lool boo demee ci kër Cheikh Ibra Fall amul kooy fekk mu def nii di ko soppi ba jotaay ba mu yàgg-yàgg ba fii ci bis bi ñu jógee nii léegi firnde la ci kon day mën ne Cheikh Ibra Fall nii mel te loolu même mbooleem ñi sëñ Touba yar xemmee nañ ko ndax Euh, Baye Modou di jës bu nee na damaa dem kër Baye Moussa Sall gi ci Mbàkke Baye Moussa Sall ca magi Cheikh Ibrahima la nee na may dugg di waxtaan ak moom sëñ Daam Abdourahmane loo romb ñu jëm Mbàkke taxaw ci buntu kër gi wàcc dugg di nuyoog Baye Moussa Sall Baye Modou Wade jës bu nee na ma lamb sans pos ko mu ne nikk sama loxo na ma xanaa ci defar Cheikh Ibra Fall nga bokk mu ne ko mu ma jaar mu ko jaar naa ca daara gi ci gébbu mu ne ma ok jekk kon la Cheikh Ibra def ci Baye Modou Wade jës moo tax sëñ Daam Abdourahmane loo xàmmee ne kii kër Cheikh Ibra la bokk kon yar lu am solo la ma maam Cheikh daan comme masay tarbiya dara yar teg la ci aw yoon te it nag eh, li lay xamal ne Cheikh Ibra am na lum làmboo woon loo xam ne bokkut ak li nit ñi xam li ko nit ñi xamee damay wax ne Cheikh Ibra mii ñuy woon ak Cheikh Ibra mu ñu xamoon bokkul ndax benn mooy karo bi mu tàbbee gànjul ay muqaddam ñoo ko topp ña ko toppee gànjul kilifa lañu woon ca dëkk ba sëñ kër loo ca la bokk jàngalekat la woon daara la yoroon sëñ Modou Guèye ñaay daara la yoroon gànjul sëñ Babacar Lo moo doon yilimaa sëñ sëñ Mbaye moo doon yilimaani gànjul ndax ma nga gënee jamono ndóob te ba muy gàddaay di ko topp ci 1892 la boobu Sëñ Tuubaa demagul ci géej gi kon loolu it da ngay delluwaat ci ku tedd ki moom mooy kan defar na góor yàlla laataa muy dem ci géej gi muy Cheikh Ibra ba wàcce ko ci ñetti at tarbiya yooyu Cheikh Ibra dem gànjool dugg côté gànjool ay muqaddam di ay ponkal yoo xam ne xam nañ leen ca gànjool riir topp ko te boobu Sëñ Tuubaa demagul ci géej gi loolu lépp day delluwaat ci kon melaw wi sëñ bi ma bëgg ku ni ni mel te loolu firnde la ci ndax Euh, sëñ mag ñëpp leeral nañ ñu nettali nañ ñu ne ku sëñ bi mas bu wax sax ne ko wax li nga gën a bëgg tey mel ni Ibra Fall ngay wax waaye borom Tuubaa nag daana wax ne daf ma rëcc fa ma ko sànni ba fa xayikoon ba ëllëg yow ma xam du laal suuf foofu it sëñ Fallou kenn mënta xam fu mu doon kon moo tax ñii li seen maam def ci ñoom ñu jàngal leen yar leen loola lañ dellusiwaat ngir bëgg ci liggéeyal seen maam won àddina na leen lii Cheikh Ibrahima ko gën a xam ñëpp lii Cheikh Ibrahima daa bokkul fii gars yi toll léegi nga xam ne ku mokkal benn jukki wala benn téere rek wëree ko àddina jàpp na mën nga cee commerce mbaa nga wuti ci xaalis déedéet ñii li ne fi ñoom wallaay rancim ne kenn amul njëgam waaye nag yitte woowuñ ngir di ko wutem koppar mbaa di ko wute dara jomtukaay bu ñu liggéey la seen maam la waaye bu lii yeggee rek ci kanam tuuti lépp leer bu soobee sans borom macha allah sëñ Mamour Ndao jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñoon di ànd ak euh, ñun ci jataay bi nga xam ne moo di ëttu ñu amale ko fii ci euh, daaray maam Cheikh Rahma Fall wax naa ne sëriñ bu mag bi wax nañ ne mas nañ koo laaj mu ne ñett day ba bis penc duñ laal suuf ñu ne ko ñett ñooñu ñunu mu ne fa ma sànni Ibra Fall fa dëppee woon jëm si suuf ba ba addunay du laal suuf ndax sori kaw ñu ne ku ko ñaareel mu ne nag oo ma doon fexeel ca Ndakaaru sun borom aj na ko foo xam ne bu fa dëppee woon jëm si suuf ba ba addunay tukki du laal suuf ñu ne ko ko ñetteel mu ne tubaab ba ma yóbbu woon Njole di ma porter plainte moom it jël nañ ko moom fa mu dëppi woon bu fa jëm si woon du laal suuf kon kenn ku ci nekk sori nga ci kaw maam maam Cheikh Ibrahima Fall lan moo taxoon sëñ Touba yóbbu ko foofa yaakaar naa ne nag loola mooy li sëñ Touba woote woon ndax sëriñ bi daa ñeme responsabilité amul kenn koo xam ne Cheikh Ibrahima ba mu jógee njaree jaar wàqi gànjol de ay bokkam sëñ Touba defaru ko ba noppi yebal ko Saloum danaan ko dellul fa nga bàyyi ko woon man lu ma noppi rek yàlla noppi na ca noonu la sëñ Modou noonu la defal sëñ Massamba Diop Samb noonu la defal ñëpp kenn ku ne ba mu noppee dana la dellu ci say bokk suñ xebetee nga xam ne defar gi des na waaye kenn ku nekk ba nga noppee say bokk daw toppaat si la kon defar gi defarug sëñ Touba la adduna nag waxtu ne sëñ Touba da ciy yey fi mu ne nag sëñ Touba yeyati na am na ñu nekkoon ci réseaux sociaux yi am ñu ne ci télévision yi am na ci YouTube yi kenn ku ci nekk la ñu doon bëgg reyee benn aayab alquran boo dégg tafsir lu ko wala benn hadis boo dégg ba tax nga ci doon yàpp ñeneen ak ñeneen tey jii nag ka ngeen xam ne moo doon maam Cheikh Rahima Fall Babul Mouridine ba ku bëgg a xas del ko ci moom fekk na leen ci lang gi lang gum leen fekk mooy alxuraan xam-xam nañ dox tuuti ñaari at ñu xam Cheikh Ibrahima Fall mooy kan kon bokk yi lii moo nekkoon seen jëma jotaay ëttu murit ngeen aan ci ak seen bokkum taalibe Fallou Galass Syll fii ci maam Cheikh Rahima Fall ñi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen numéro wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa